mbokk yi dal leen ak ci sen benen numéro bu 13 perf sur 13 TV numéro bu tay bi bokk na li nga xamné mo ci gëna first performance yu sénégalais yi beaucoup de sénégalais dugal nañ ay but ci weekend bi loolu yëpp dinañ ci digg ak préparation li nga xamné mom moy regroupement équipe nationale bu Sénégal en vue ñaari matcham yi éliminatoire CAN 2022 digganteem ak Guinée Bissau li ak yeneen information légui légui lay doon. ñu tàmbalee news yi ak match Sénégal Guinée Bissau yi nga xam ne dafa ñeel éliminatoire CAN 2022 ci Cameroun. équipe nationale du Sénégal bari na ay dañu euh, forfait ño xamné duñu bok ci match bi bok na ci ñom ki nga xamné mom euh, am euh, blessure ba tax duñu bok ci match bile ba tax Aliou Cissé daal di wo ay renfort ño xamné ño leen di remplacer Nous na équipe nationale U20 Alpha Jonku

Cheikhou euh, Kouyaté ak yenen joueurs yo xamné ñew nañu ngir def sen tagatu ku ñëk fas entraîner tay ak suba ngir mëna préparer match bi nga xamné euh, dina am niki mercredi ci ngone à 16h ci stade la jor bu ties ñu wax ba tay ci benen information mu di tournoi UFO a bi nga xamné da fay qualificatif ngir kan U20 euh, bi fas am niki déwon ci réew Mauritanie groupe yi xam nañu leen léegi ndax tirage au sort bi def nañ ko fi ci Sénégal Sénégal mu ngi ci poule A bi fas ci and ak Sierra Leone

yoo xamné dina am solo bu baax a baax a te équipe nationale du Sénégal euh, di ko euh, préparé ñu euh, jéxalé ci li nga xamné mom moy information benen bo xamné dinañ ko gëna a yaatal ci li nga xamné mom modi rubrique bi di ñëw ndax équipe fédération sénégalaise bu football comité exécutif bi dañoo dajé dal di def réunion décider né légui benn sélectionneur équipe nationale dotul yoré club liko waral moy dañu japp né lolé mengout ak li nga xamné mom moy professionnalisme ba tax entraîneur yi nga xam ne ñoom la gën a ñeel euh, mu euh, di Malick Taf mi yor jaraaf bu Dakar yor également équipe nationale U17 ak ki nga xam ne mooy euh, Youssouf Dabo mi yor U20 yi yor tamit Tëngéej FC am nañu 3 mois ngir mën a jël décision ndax dañuy des seen club yi wala dañuy tànn équipe nationale fédération bi nag di leeral ne ñoom ku ci def choix nekk ek sélectionneur national di nga am salaire comme ni ni ñu respecté ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé mi yor équipe nationale A bi dinañ ko gën a yaatal ci kanam. 8 buts

leneen loo xam ne yi te beneen performance la bu Boulaye Dia def ba léegi mu di ak 18 buts yoo xam ne dugal na ko ak stade bu Reims dans l'élite maanaam ci Ligue 1 euh, française moom Boulaye Dia il devient le meilleur buteur euh, dans l'élite au 21e siècle bu club bu stade de Reims muy performance bu am solo boo xam ne am nañu yaakaar dina ko indaale ci équipe nationale bu Sénégal bi comme niñ ñu leen ko jundé won sank ci news yi dañ koy jëmale ci décision bi nga xamné comité exécutif bu fédération sénégalaise bu football jël nako né ben entraîneur national euh, sélectionneur national bi nga xamné euh, mom euh, dafa yoré club du dañu koy rek wax mu daldi def choix diggante club bi ak équipe nationale bi bu ko défé ginnaaw ci lolu dina am même traitement salarial bi ak entraîneur sélectionneur national bi di Aliou ci équipe A bi jox leen nak li nga xamné mom modi délai bu 3 mois ndax ñu def sen choix mu don nak problème problématique boo xam ne euh, faaw ñu taxaw si ndax dafa bëri ay situation yu compliqué yoo xam ne am na ko li ci positif mooy euh, loolu lu am solo la ndax dina tax équité daal di am ci li nga xam ne moom mooy sélection yi ndax jour yu ci bëri xëy na euh, dañuy décider dem ci club yi nga xam ne nationaux yi comme par exemple Youssou ki nga xam ne moom mooy Malick Daaf ci Jaraaf ak ki nga xam ne mooy Youssoufa Dabo nekk ci Tëngéej FC fa la nekk ngir am chance dem ci li nga xam ne moom mooy équipe nationale petite catégorie yi loolu dina indi équité ndax bu ñu demee fofu dina tax jours yi dootuñu dem ci loolu ah, li nga xam ne nag moom mooy aspect négatif yi xëy na liñ ci mën a jàpp mooy délai bu 3 mois bi nga xam ne moom rek lañ jox entraîneur yi te bu ñu xoolee ñaan di mu gën a concerné mu di Youssouf Dabo ah, comme malik Daf ak euh, Teungueth FC ak Jaraaf ñu ngi waaj a bokk ci li nga xam ne moom mooy compétition africaine yi Ligue des champions ak Coupe CAF ah, te euh, compétition yooyu ak bu ñu ko boolee ak championnat bi nga xam ne war na démarrer d'ici quelque temps dina doon loo xam ne dina compliqué euh, ci choix bi mu nar a doon instabilité ak jafe-jafe jiixi jaaxa gi mu nar a indi ci biir club yi euh, bu fekkee ne entraîneur yi décidé nañ dem équipe nationale dinañ sevré euh, club yooyu bu fekkee ne décidé nañ toog ci club yi euh, dina doon ay entraîneur yoo xam ne ak seen talent duñu ñu mën a yore équipe nationale yooyu nga xam ne amal nañu sonn Sénégal bu baax a baax mu doon situation boo xam ne situation bu compliquée la ci timing bi mais également décision bi mais on espère que cela va se régler ak bi nga xam ne moom mooy mujjantal kii Sénégal mën cee jëriñoo. ay yi bëri na ci ñi nga xam ne moom mooy sénégale yi nga xam ne def nañ ay performance dañu koy tàmbale ak ki ci gëna a fës mu di euh, Boulaye Dia mi nga xamné euh, permettre na Reims euh, daal di def match nul ci match bu neex 4-4 contre Lens Boulaye Dia dafa duggal 2 buts à la 54e et à la 81e minute benen sénégalais bo xam tamit duggal na muy Pape Ndiaga Yadd mi nga xamné mom mo duggal but wu Metz bi nga xamné ne dafa match nul ak Dijon un but partout ci sénégalais yi ba tey gis nañ né Marseille bu Pape Gueye mom mo daan Strasbourg pour Abib euh, Habib Diallo 1 euh, à 0 euh, il y a un résultat yi Paris Saint-Germain pour Idrissa Gana Gueye Rennes pour Alfred Gomis 3 à 0 Ganegay blessé ci Alfred Gomis encaissé li nga xamné un modi 3 buts bu ñu jugee ca France dañuy dem fa nga xamné mom modi Angleterre Liverpool Manchester City dañoo mujjee match nul 1 but partout Mohamed Salah égyptien oui mo double Liverpool ci penalty bo xamné Sadio Mané moom moo provoquer provoqué un match yi gis na Chelsea bu.

Sampdoria Cagliari mom mo len euh, recevoir dans len 2 buts à 0 Diao jéewul ndax dafa amé blessure ni ngeen ko xamé au même moment Lazio dafa match nul avec Juventus Turin un but euh, partout euh, Inter Milan moom même résultat digganteem mak Atalanta Bergam un but partout Naples bu Kalidou Koulibaly mom dafa fekki Pologne daan un 1 but à 0 Victor Osimhen Nigérian bi mom mo dougal Milan ak Verona dañoo nul 2-2 Ibrahimovic dougalati ñu dem ci Allemagne Schalke 04 mom dafa match nul 2 à 2 ak Mayence ci euh, Mayence la match bi amé à euh, Dortmund Bayern Munich mo doon classique bi euh, Dortmund dafa mujjé ñak à domicile 3 buts à 2 digganteem ak Bayern de Munich Turquie ñu ngi leen ko doon jundju ci dernier numéro bi bari na ay sénégalais yu doon daje amna ci ño xamné def nañ ay performance ki nga xamné mom modi mambiram di mom dafa dougal permettre ba ki nga xamné ñoo di clubam di atay Sport dal di daan ñi nga xamné ñoy ñooy Sport 1 but à 0 euh, Mame Diouf donc mon dugal euh, but bobé un résultat yi nga xamné mën nañ ci baye xel tamit fofé euh, nul bu euh, partout euh, ñu daldi di euh, wax ci li nga xamné mom modi Belgique Belgique ay sénégalais tamit wané nañ fa seen bopp ndax Club Bruges dafa fekk Ostende donc 3 buts à 1 Club Bruges Crépin diata ak Youssouf Badji ñu duggal ñaar ci ñet ci seen but yi Ostende mom Guèye ma Guèye mo duggal li nga xamné mom moy mooy seen but bi ñom wa Ostende donc 3 sénégalais ñu duggal ci match bobé ci Ligue 2 bu France fa lañuy dikat ñew rek ki benn résultat bo xamné ne sénégalais loolee wane na fa euh, bopam mu di euh, ñi nga xam ñoo di wa socio euh, bu Omar Daf ñi nga xam dañ leen daan 4 buts à 3 ñor nak sen 4e but bi Pape Ibnou Ba moom moo dougal mom moom Pape Ibnou Ba dugalaat beneen but li mo doon resultat yi. alors li nga xam mom moy agenda bi nak xam ngeen ko weekend bi euh, trêve internationale la ba tax club yi duñu football équipe nationale ñoy football beaucoup de matchs intéressants mais biñu ci gëna capter son sunu attention moy Sénégal ak Guinée-Bissau au stade de Dior bu euh, Thiès particularité match bi nak euh, moy li nga xam mom moy Sadio Mané mi fas jouer premier match am l'équipe nationale du Sénégal ak ginaaw bo mu jëlé ballon d'or africain bi ba légui mu donne un moment spécial pour mom mais surtout pour sénégalais yi mbokk yi li leen indiloon ci ce numéro bu 13 perf sur 13 TV di leen wax ngeen vous abonner sur suñu chaîne bi ngir mën suivre yëpp vidéo ak information yi leen vous dégtal jaajëfal équipe technique bi di leen dig au prochain numéro